de retour sur le plateau matinal Allô Sénégal alors ñu dikkaat ci plateau bi ànd ak faw Fawzeyni ci secret yi nga xamante ni moom la ñuy proposé euh, tey ci lan la ñuy waxtaan. waa kay soxna Aïssa tey mbokk yi dañuy laaj loo xam ne bala ma leen koo leeral daa leen ci jox euh, am na tuuti danger bu ci nekk te ñu ko bari. danger am na ñu ko bëgg waaye am na danger bu ci nekk muy bayra dafa bari ju ko bëgg eh, mbër yi dañ koy bëgg artistes yi dañ koy bëgg musiciens yi dañ koy bëgg jàngkatu xaside yi dañ koy bëgg ak ñi sikar ak ba ci ñuy jaay dafa am ay bayra ay yoon yu baree bari bi nga xam ne pour jëmmi nit ki la ak bërëb ba nga xam ne dangay bëgg bis bu ne muy am ay nit moo xam place la mu nuy jaaye mhm. ak ñu lay tudd ca la ngay liggéey nga siiw ca daal euh, bàyyira am na ñu koy dawit ñoo xam ni bëgguñu ko mm-hmm. waaye nit ñi dañoo wuti ay bëgg-bëgg waaye nit ki daal bala koo am war naa njëkk am ay muslaay waaw yi may bëgg a joxe moom yu nu jarbu la maanaam yu nu seet seetaat ko la euh, balaa ñoo ñëw ci secret yi mm-hmm. yan danger ñoo nekk ci ci bayre waa xam nga bayra soxna Aïcha euh, danoo wax ni garab garab gi sax buñ ko doon tudd bis bu ne ñu naan garab gi garab gi bu yàggee garab gi dana wow wala mu daanu mm-hmm. moom moom la moom la mag ñi naan wax jigul bant bay jig nit bay jig doomu aadama mm-hmm. ndax ku ñëpp tifli nga tooy euh, te suñ boroom dafa wax ci alxuraan ni bind naa ci jaam yi ñoo xam ni lu ma xool ci seeni bët mu yàqu lu nu wax ci seeni làmmiñ mu yàqu mm-hmm. léegi la waaye jamono yonent bi sallallahu alayhi wa ah, dafa am benn waaye boo xam ne màkka ci li ma laaj lay tontu. Mhm. waa màkka dañ ko doon daw parce que nee na làmmiñam baaxul maanaam lu mu tudd rek day yàqu mu dem ci Seydina Omar ne ko man de gis naa ni waa dëkk bi dañ may daw mhm. Seydina Omar ne ko loolu de mënuma la ko woon a wax waaye li nga ma ko laaj a tax nag ma ma di la ko wax waa dëkk bi nee na sa làmmiñ dafa ay nee yow loo du mu yàqu moo tax ñu lay daw <coughs> bi ko Seydina Omar waxee loolu moom ci boppam muy teste bopp làmmiñam mu dem ci benn tool boo xam ni dafa bari lool ay tàndarma mu mhm. xool tàndarma bi gën a naat mu ni ëw tàndarma bi moo moo naat tàndarma bi doom yi moo ci gën a moo ci ëpp ay doom moo ci gën a ëpp tóortóor ne daane lagul sax doom yaag tóortóor yaag yépp àndandoo wadd ci suuf. kon nag testé na boppam. nee mu def nii moom. xam ne liñ ko li ko dëkk bi dawee dëgg la. ca laa daawee dem wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ni ko ŋaal mu ŋaa. yonent bi ni ñaadam ñaar maam ñaan tifli ci gémmiñ ci mm-hmm. ni ko sunu borom dindi na gaaf gi mi léegi defal naa la ci defal na la ci ñaan gi ma la ñaanal loo ñaanati sax yàlla nangu ba pare yonante bi daal di woote nag daal di ñu mel nii fu nu nekk mm. dañ leen a war a xàmmee jar na ñu tëj leen ci bërëb mm. borom làmmiñ yu ak borom yu aay yonante bi nee na jar na ñu tëj leen ci bërëb bu ñu leen xàmmee mm-hmm. te gàddul leen seenu dund waaye waruñu leen a bàyyi ñuy jaxasal nit ñi ñooñ dañoo am moom ñoo xam lu ñu tudd mu yàqu mën naa jox ay ay kii yu bari moo tax lu mel noonu bu fekkee dangaa bëgg ñu lay tudd faaw nga am ay gàllaaj yu wér mm. kon bayre yi may bëgg a joxe am nañu ko soxla mu baax ci ñoom mais am na ñoo xam ne baaxul ci ñoom parce que amuñu ay gàllaaj léegi kon nag ku amul gàllaaj hmm. bu laal bayre yi ñu dem ci ñu dem ci secret yi léegi ki nga xam ni euh, dafa bëgg a siiw ca la muy liggéey ñu ko ciy tudd xam ne li ngay li nga li ngay liggéey bëgg nga ñëpp di la ci tudd euh, da ngay bind afala yanzuruna ila libili kayfa xuliqat wa ilal samaai kayfa rufixat wa ilal jibaali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutiat wa zakiri inama anta muzakiru la saalay bi musaytirin ila man tawalaya wa kafara fi azabillah azab al akbaru inna alayna iyabuhum suma inna alayna ijabuhum aaya boobu boo ko xoolee dina am ay miim nga din nga nga yaatal miim yëpp def ci sa tur def ci sa sant def ci la ngay liggéey comme ça nga def ci diwu mécanicien wala diw musicien wala diw nangam la ngay liggéey rek nga ci def. Hmm. bu ko defee nga boole kook cuuraay libaan nga suuroo ko ñaar nga ciy bind benn bi da koy suuroo benn bi danga koy takk wax nan boo ko defee incha allahu rabbi la ngay liggéey faaw ñu lay tudd di la tudd ci loolu. loolu benn beneen bi ci topp muy sóoratu Ankabuut bu fekkee nit ki moom moo bëgg am bayra ci boppam ñu koy tudd. lu mu def rek nit ñi di ko di ko coow surtout an boo ci lay bind ba mu jeex mu def ko ndom ba takk ko téere ndigg loolu moom du ànd ak dara lu simple la waaw waaye yëpp yi wax ci xam-xam na nangu boroom xam yëpp nangu nañ ci ci wàllu ilmu asraar mm-hmm. beneen bi nga xam ni day doxit euh, ci wàllu bayra ku bëgg fa nga nekk nit ñi di la fa fekk si ni ay xorondong mooy jaaykat yeeg waaw waaw jaaykat yi mm. Eh, da ngay wut nag wu nu rey ci céet walla nag wu nu rey ci ngénte mm. wala ci màggal nagu xew daal waaw buñ ko rey nag ci dëj buñ ko rey ci nag yi nii rey ci bouse yi nga xam ni dañ koy rey di ko jaay mm. nag wu rey ci céet wala ngénte wala màggal léegi weewa weewu nag weer tànk bi <laughs> ah kay day am weer tànk bi ñu génneel la ko suñ la ko génnelee aw ka lesier marra ga ca surtu baqara nga bind ko ba mu jeex aaya bi nga bind ko ñett yoon nga soq ko ci wetànku nag bi waaw am na benn uh, lu mel ni xaaxaam luy ne ci àll bi ñu naan ko ñàppantaan te muy takk te muy ci ay yére hmm. nga dugal ko ci léegi nag jëmmi wetànk nag bi nga diw ko ba mu tooy diw ñor nga koy diw ba mu tooy diw ñor yi jigéen ñi def ci togg nga wut sagaru lawbe nga ëmbi ko ko. sagaru lawbe nga ëmbi ko ko. foo ko def. Eh, lan mooy sagaru lu lawbe doon sol rek. Mhm. muy yéreem mais na nekk lawbe. waaw mm. lawbe ko doon sol ba mu ràpp ci yéreem ci ci ci yaramam nga nga daal ko koy ëmbee. foo ko def nit ñi dañuy xeex ci bunt bi ngir dugg. mais mais loolu coono <laughs> mais am na ñoo xam ne jaral na leen ko. dina am di lay di lay laa ilaha illallah ñu ko bëgg a bari loolu bàyyi la pour lan. Hmm? pour am na ñoo xamante ne dañoo bëgg bàyyi la bu dañuy bëgg fu nu nekk bu nuy jaay bu nuy jàng nekk ci ay mbir. waaw ah, bu fekkee ay jàngkat la du bëgg a nga ci baas bu yaraax benn da ngay def loolu benn musicien a tëgg kenn ñëwul loolu ñàkk bayra la mhm. kenn bëggul di def dara kenn ba mais ça veut ne bu fekkee ne dangay tëgg nga nekk musicien wala nga nekk si dara kenn ñëwul ça boo nekkee musique li ngay def neexul yow da nga amul talent non non eh, nit ki mën na eh, non non non muy ma bu fekkee neexul kenn du ñëw su neexee ne ñëppay ñëw eh, nit mën nay def ngay dem si oustaz naan ko dama nit mën nay def loo xamante ne lu jaar yoon la te kenn du ko seetaan mm-hmm. waaw je sais comme Sénégal par exemple lu d'habitude yu am solo yi nit di def mm. bis bu ne nga gis bis bu ne nga gis waykat boo xamante ne mën a way lool kee moo ko dàq way mm. comme kan jox ma exemple kii la nit ñi gën a wuyu du ma tudd tur ah oustaz moo nekk expert bi kay non non non non bàyyi ko yow lay yow lay yow lay jàppale du ma tudd tur sax <laughs> du ma tudd tur jàmbur. <laughs> waaye yaa ngay jàppale oustaz. dama ko wuy ma du ma bàyyi oustaz. maanaam ci xew. bul génn si gàmm bi nañ yem ci tem bi. ak mujjee ñëw <laughs> ak am ak am ay ñaan. ci leen li nit ñi toppeel waaye sax du ak mën. loolu moom ñëpp xam nañu ah, wolof la ni ñi mën a kott sax xamuñu mbaam. Mm. waaw. Ah. maanaam am nañu loo gis nit avancé ci rek am na ko ko dàq fuuf te ñaari nit xamuñu ko ci loolu ñàkk bayra la. dëgg imaam am na ñu am ah? soo demee ci marché bi. Mhm. léeg-léeg nga gis koo xamante ne li ngay jaay lay jaay. Mhm. ëppoo ko bagage dàqoo ko jaay. te yaay la nit ñi rang bayre bayre def loolu. <laughs> Ah? léegi ñett secret nga ñu jox. des na wala beneen bi ci topp muy suma afidu min su afadanaasu moom it ma nga ca surtout Baqara. ay cent quatre vingt dix mhm. bu fekkee da nga jaay oto maanaam lu am valeur. jaaykatu oto yi. waaw <laughs> déglu leen. wala ngay jaay kër pàkk loo xam ne ay millions lay jar soo ko bindee suma afidoo min xay su afada naasu cent onze nga soq ko ci yaxub nag. léegi nga fexe ba dugal ko ci oto bi foo xamante ne kenn du ko gis. bu fekkoon bu da nga am parking oto ba nga ko def. maanaam mais mais jàppoon loolu ay xërëm la benn oto loolu ay oustaz loolu ay xam nga yàlla moom mooy dogal nit lu xew rek yàlla la mais munoo basé wu si yàlla ba pare di def ay affaire yoo xam ne gëm nga yàlla di ay affaire yoo xam ne loolu xërëm la. léegi yow boo xëyee bul wuti dépasse neel yàlla moo yor moo yore dund. non mais nit yàlla mooy décider mais nit am nga sa coobare def mais yoo xamante ne dëppoo na lu yàlla loolu yàlla da koo tere oustaz ah kay bien sûr oustaz yàlla ko tere ñaan mooy ngànnaay jullit adduwaa ul mu mais kenn la façon ñaan yooyu dañ la ñaan yàlla nga ñaan ko tàllal loxo mais dem di di ay dénk ay kii ay xositu euh, euh, nag ay yàpp nag ak ay xaaxaam ak ay diw boole yooyu oustaz tamit loolu gis nga nit dana feebar feebar boo xamante hmm. boo xoolee ay mbiram li sixaar ko danga naan ko wutal ah, gàtt boo xam ne yéen a tolloo poids. Mm. nga génne ko sarax nga rendi ko saam ko juróom-ñaari saam génne ko sarax bu fekkee ruu munta ñàkk maanaam uh, day taxaw taxawaayu faatu nga naroon faatu. Mm-hmm. ah bon kon xanaa nga da ngaa rey doomu jàmbur ngir sa bopp. ay tettal la loolu dafa ah, am tamit sacrifice. Ah, du sacrifice. alors ñu bu fekkee des na. Ah, bi ci bi ci des fi may daanee la sama kàddu. Mm. maanaam bu fekkee tamit da nga bëgg. gis nga Pape bu mu la disturb. ci wàllu secret yi téléspectateurs yi da leen da bëgg ci wàllu bayra <laughs> bayra lu am solo bayra bii nag bayra la boo xamante ne. Mm. Euh, du joxe lépp. lu tax. waaw ndax su ma joxee lépp ñenn ñi mën nañoo jàpp ni euh, kalaasu Pape gii mën nañoo jàpp ni euh, am na ci loo xam daal neexut a wax. waaw kon dencal loolu. waaw li saf suukar wax ko. waaye képp koo xamante ne. Mm. da nga bëgg réew mi ñépp di la coow foo nekk nit ñi di fa fees dell mel ni ay xorondom loolaal nit ñépp di ko wax am na ñu bëgg loolu loolu ñu doon bës bës dafa am ñu ko bëgg képp ku bëgg lu mel noonu la ma cee liggéey ci wàllu bay la bisub àjjuma leen koy leen koy liggéey mm-hmm. nodd gu njëkk gi ci ci jumaa ja buy bilaal bi bu noddee balaa daaneel lay bind ñetti nodd yi ci moom balaa daaneel nga xam ne buy daaneel moom imaam bi fekk na man man bind naa ñetti yoon nodd mm. léegi jëmmi nodd boobu nga xam ne bind naa ko daal koy lem def ko ci këyit bu sew loolu dama koy def ci euh, kii leen koy awee deru tama li may bind noonu ci nodd gi bu imaam yëkkatee balaa daaneel ci deru tama lañ koy awee léegi ba la ñu aw nag dafa am lu muy àndal dafa am sarax buñ ciy génne waaye boo ko takkee maanaam waxuma la réew mi waaye àdduna ci boppam ñoo lay coow hmm. waaw waaye bayra moom ak ñaan lu ama am la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pap nee na bari na lu jëfe nit lu ko waroon a yomb nee na ñàkk ñaan a tax nee na bari na lu yomb nit it lu ko waroon a jafe ami ñaan a tax nee na ñaan bu mu mënee jële nit sawara yóbbu ko aljana boobu la tëlewul dara nit day nekk ci day nekk sax ci mbugal nga ñaan sunu borom ba sunu borom teggi mbugal yi dégg naa Sëñ Tuubaa ku musaani ñëw ci moom ni ko nit am na dara lu mu rëy rëy daan da koo ñaan yàlla bu nee ko diw dafa ñàkk nanga bu ni da koo ñaanul yàlla léegi nag mi ngi wuute nag ci kii ñaan ndax suñu borom dañu ñi ragal yàlla laay nangul waaw moo tax ñaan lu baax fa nga yaakaar ni fii am naa fa yaakaar léeg nga dem suñu borom defar la yaakaar jooju lu kawe suñu jot jërëjëf ndax dañu gémmiñ goo mustafen ñaan mu barkeel lu mu ñaan yàlla mu barkeel mm-hmm. ndax yow sa gémmiñ man munumaa fexe ba fenn ci sa gémmiñ yow tamit mënoo fexe ba wax lu dëgg ci sama gémmiñ moo tax gaay naan moo tax gaay naan bul ma fàtte ci ñaan mm-hmm. waaw. mais question bu ndaw la. kon foofu la ñuy <laughs> wàccee sunu kàddu soxna Aïcha. Mm. Euh, di wax ni loolu mooy li nga xam ne manees na koo ni <laughs> uh-huh. ci wàllu bayra waaye waaye fii heure bi toll. am na yoo xamante ne mënees koo wax du waxi. plateau waaw du waxi plateau. Eh, yow euh, képp koo xam ne tamit. Euh, loolu laa ko képp koo xam ne ma ñëw. képp koo xam ne tamit <laughs> dangaa bëgg a listixaar lu say mbir. Uh-huh. man am naa bayra ndax sama kër. samedi ak dimanche laay recevoir waaye damay recevoir ba yenn heure yi ma ne ñi ci des ma jéggal ba samedi bi di kaat mais bu ma xoolee vidéo bi nga def mercredi bi passé 15 euh, vues moo si nekkoon mais loolu mënuñu wax bayra la. mais loolu du bayra. ah mais su fekkee da nga am bayra kay loolu bayra kenn du ko am na ñoo xamante ne maanaam. waaw ah, oustaz yaa ah, ah, du nu nekk ci ci ci téléphone bi. alors man bayra ni ma koy amee. Pape day blague bayra ni ma koy amee day laaj lu am solo bayra ni ma koy amee maanaam ma jëfan ma jëflanteeg nit. ci wàllu ñaan mu gis résultat boole ak ay mbokkam parce que fukki nit man dama am ijaaba ci wàllu ñaan ijaaba mooy la barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam soxna Aïssa ci wàllu ñaan loolu dañ ma koo waajal sax laata amee ñëw mm-hmm. maanaam nit ñëw léegi am soxla léegi ma saafara ko léegi ah. macha allah gis nga bi ndox su ma ci ñaanee rek su ma ci ñaanee yéene ci li may ñaan su ma ko joxee ki ma koy jox bu ko sangoo aajoom faju macha allah alors ñu bàyyi la ñu bàyyi la nga joxe numéro bi bu ko defee ñu yëkkati jotaay bi waaw képp koo xamante ne mhm. da ngaa bëgg a listixaar lu say mbir ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallama dani nit ki lu mu sàggan sàggan at mu nekk war na ci listixaar ay mbiram listixaar nag ñun lu nuy fanaanoo lay doon moom la lislaam santaane listixaar dañuy xam nit ki turam xam ay atam xam turiyaayam yaayam loolu la ñuy adat fanaanoo ko buñ ko fanaanoo su ma xëyee donc mosuma laa gis day mel ni seetu laa la seetu laa la te woon sag dund <laughs> naa la wax li ngay dund wax la li sa kanam wax la jafe bu mën a nekk sa yaram wax la ak lu ko waral bu fekkee ab tukki la naa la wax li xew ci yoon bi bu fekkee nit la koo xam ne dafa wane ginnaaw kenn gisatu ko ay mbokkam gisatuñ ko su ma ko xoolee ci ilmu nijoom bu dee dund naa ko wax bu dundul dinaa ko wax bu nekkee ci jafe-jafe dinaa ko wax bu nekkee ci indépendance dinaa ko ko wax. jërëjëf. bu fekkee ëpp sëy la dinaa ko wax ba xam ànd na wala àndul wala bu fekkee àndul sarax yi ñu ci war a génne pour loolu mën a saafara ndax sëy ñett la dafa am boo bi ci gën a dansé mooy ki nga xam ne boo ko takkee dina la tënju. Hmm. yàlla ñu ci yàlla musal yaa ngi dégg. Hmm. dafa am boo boo ko takkee dina la tënju ci changé balaa yàgg. Hmm. loolu gaa yi ñu ngi koy dund. am na boo xam ne boo ko takkee boo doonoon ko am da nga yalwaani ci boobu sax moo tene mm. tenju bi am na boo xamante ne soo ko takkee yéen ñaar ci xuloo ngeen di dëkk am na boo xamante ne boo ko takkee kooku dana feebar ci feebar lay dëkk léegi nga takk ku takk soxna ban ko takkee ba léegi du wér moo tax ab sëy képp ku ciy dugg te xooloo ko yaa ngi ci danger xool leen sëy aw yoon képp ku ciy ah tukki léegi ñu ko def te xooloo ko yaa ngi ci danger. moo tax lu ne nga ciy gis. ko deful kon ñu ngi si danger. moo tax fukki sëy yoo takk ren ah. juróom-ñaari tas na Pape Mari mu ngi may dajji man fi mu ma. fukki sëy yoo takk ren. juróom-ñaari tas na balaa weer wee del si. jërëjëf. ñaar yaa dëgër benn ba ma nga yëngatu. merci jërëjëf loolu ñàkk xoola ko waral. léegi nag képp ku ci bëgg lu leer. da ngay woote ci 78 530 69 81. merci beaucoup 78 530 69 81 maa ngi jéggalu. Euh, kàddu yi euh, lépp lu ñu ci wax rek lu jub ci yàlla lépp lu ñu ci jubali rek ñu ngi koy jégalu bu mooy wax loolu <laughs> waa Régis nee nañ ma Pape Malick mu ñuy daaj ñu fi mu ne nii mënatuñu ah Pape Pape dañ koy comprendre donc voilà c'était intéressant parce que des fois yenn question yi aussi day tax euh, nit yi comprendre en tout cas ñu ngi lay jaajëfal lii moom duma ko wax ndax yaa fi toog mais man saa émission bi jeexee sama téléphone bi day kay kar kari di ma ah laaj sa numéro wallahi al azim dañ may woo am ah, ñoo xamante ni TikTok am na ñoo xamante ni TikTok lañ may lañ may contacter pour di ma laaj numéro numéro ni donc voilà loolu man mën naa ko témoigner ci tele bi jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal secret am na solo